way bi Coumba Gawlo la wayoon ne dina neex dina yëngoo fi gëm naa ne tey dina neex dina yëngoo ndax euh, maa ngi nii nuyooguma sax ñoom tàmbali nañ bu yàgg. war a entraîner. barki non respecté entraînement même bu dul même bu bëggoo. même même bu dul même même waa même bu dul waa déggee déglu. même bu dul bëggoo sa dama ni nga nooy bala ngay fat dama ni Ousseyn waa léegi dañ lu ma c'est que barki Seydina Mohamed kii bu ñu jàppante maag moom billaay walaay wa taalaay dana mel ne ku dugg kaarapit sàmbalaw ba bi dana bëgg a ah, du waaj fu ko neex du waaj fu ko neex kii moo ko jàppee dana mel na kañe gu dëgg tiga dege mas ngaa fekk kañe fu mu dëgg tiga dege dana mel na kañe gu dëgg tiga dege maa ngi yow bokkuñu yow boo xoolee lii nga xam ne maa ngi liggéey bu fekkee li muy woote dëgg la ci moom na sumee ñu xool yaram bi Ousseyn man xuux daaxuma xuux daaxuma loolu tàppet nga ko xuux dama ne man xuux xam nga ni si yii ak lii nii bokkul doole doxul jàmm yow lii sama yaram bi li ma ci def yow doo ko ci def parce que amoo xaalis boo ko ci def jërëjëf waaw moom mi il faut ma duma ko ba mu faatu man ko arène benn combat moom moo ci dese te wóor na Rasulullah da moom dama ci def crime te ci yow lay doon muy yow bis booy ñëw esaat booy boo bor boo amee nit ci seen koñ. Hmm. nga teel koo joxe. yow yow alxuraani kari billaahi walaahi wa taalaay bu boobaa bu Fallou Ndiaye bëggee nga teg sa rédicat ma teg sama rédicat yow xeex maa yow mbóot laa mbóot fekkee da ngaa yaakaar ni xeex yow billaahi walaahi wa taalaay ma la jàppee da nga mel nan kii ma bëree moom dama koy xeex damay xeex moom dóor ko mu daanu far fos loolu far xoola parce que alxuraan yow jàngoo xamoo dara parce que naxa naxa my friend wéroo my friend don't mo you inside my heart <laughs> booy maa la gën a dégg ah. yow yow yow neex lenn daal man damaa dégg anglais. gën a dégg anglais fuuf. you don't speak English. yeah. me I speak English you don't speak English you don't speak French. me ay Gambien nga fi làkk anglais laa la wax waxuma ay Gambien nga fi làkk. please.